mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi ak wuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu jot na ca Medina Cheikh bisimilah ci xibaar yi. Euh, cas bu ñu détecté ci wàllu coronavirus bi foofee ca Touba autorité médicale yi daal nañuy jël matuwaay yi mu war euh, njabootam mettre nañ leen en quarantaine dinañ ci daal di dikk ci ndorteelu xibaar yi lay doon euh, sénégalais bi nga xam ne daal na koy nag moom moomee daanaka tax na ministre bi ñu denk wàll wi daal di nag génn daal di fàttali yenn ci ay mesures ñu fa war rek doxal ci mbir moomule ak ñetti kaay yi ñu daal di nag dese ci kanam dinañ ci jukki nekkoon defoon nañ ko ci xibaaru diggu bëccëg gi dinañ ci dikkaat OMS sax daal dañuy déclaré ci àllarba tey jile eh, épidémie boobu ne ñu daal jamono ji pandémie lañ koy duppee ndax nag la mu daal di walis yaan ci réew yu bari daanaka sakkan na ci diirum ñaari rek yu bés du war a toll ci eh, mbir mi dafa multiplier wu fukk ak eh, ñett dinañ ci daal di jukki ba tey ci kanam lay doon bokkoon na ponk ci wax sa xalaat yi di ngeen ci mën a addu li aju ci wàllu jëfandiku cigarette si bi maanaam baatam buy wax kenn du ko dégg euh, cancer bu larynx lañ koy daal di nag tuddee euh, opération ba nag boo ca génnee daanaka am na ay matuwaay yu bari yañ cay daal di nag jël ak la mu laaj ci wàllu koppar dinañ ci dikk gëstu gañ ci amal ak kii di Adja Ndeye Khady Diop lay doon dinañ dikk itam ci communiqué bi bàyyi ko ci wàllu nag police ak li nga xam ne daal nañ koy def ci liggéey la ñu gis ci wàllu criminalité statistique daal mooy daal nay wàññeeku tuuti buñ ko gam ak weer yi ñu daal di nag génn ci kanam ñu jukki ci beneen ponk wax sa xalaat bi aju woon ci wàllu euh, dialogue politique bi gannaaw ba nga xamee na lépp lu aju nag ci question électorale bi daanaka euh, jiboo du ca am ñàkkum confiance googu ak njàngat bañ ca daal di aman ci kanam ñu daal di ciy jukki toftal ci yeneen i xibaar ak tàggat yaram Alioune Badara Socé moo ne ci sottandikukaay bi faram-fànce gi neskis lay doon ci kàddu gi ñu daal di dooree xibaar yi kon ak benn cas bi nga xam ne daal nañ koy détecté ci wàllu coronavirus bi foofu ca diwaanu euh, Touba autorité médicale yi nga xam ne nag dajaloo nañu ngir daal di teg dooleel bu baax euh, système bi ci wàllu surveillance boobu leen njabootam nag dañ leen mettre en quarantaine maanaam ber leen bu ko defee lépp luy jëm ci wàllu nag euh, daal leen càmbar ngir ñu bañ ko wàll kenn ñu daal di koy amal Touba tuuti sëy matuwaay yi nga xam ni moom la ñu taxawaloon moom moo tax ba ñu nemmeeku cas suspect test yi nag bi ñu ko amalee ba pare xam xamle nañ ni waa jooju moom dafa amee li ñuy wax coronavirus médecin chef district sanitaire bu Touba ak équipement bam di woyal li nga xam ni moom moo ci topp patient boobu di benn moodu moodu boo nga xam ni ma nga bàyyeekoo woon ca Italie juróom benn fan ci weeru mars juróom fukki at ak ñaar la am moom nag jamono yi ñu toll mu ngi ci service maladie infectieuse hôpital Fann bu Dakar docteur Mamadou Dieng médecin chef district sanitaire bu Touba di ñu ko xamal ñi nga xam ne nag ñooy kilifa yi di dalal xel di wax ni moom wér-gu-yaramam fi mu ne nii amul tiitaange jamono yi ñuy toll nag li ñuy def moom mooy nemmeeku képp koo xam ne rek patient boobu jege woon na ko wala mu am ak moom contact bi mu ñëwee ba jamono yi ñu toll ba tax na njabootam gépp fi mu nekk nii ber nañ leen district bu Touba sax am na appui institut Pasteur bi nga xam ni am na équipe bu mu indi ci biir Touba kii di médecin chef di wax nag ni dispositif bi ko gën a renforcer te te it dinañ gën a sensibiliser doomu aadama yi jëm ci wàllu fagaru bi ay tàggat sax fas yéene nañ koo door jëmale ko ci personnel médical bi nee na nag li nga xam ni moo leen jaaxal mooy moo moodu yi nga xam ni dañoo jóge bitim réew di ñëw ci biir réew mi di jaar ci tali yi te ñooñu dañuy ñëw rek dugg ci biir askan bi kenn du leen xàmmee xamuñu ndax yor nañ doomu jàngoro ji am déete ñooñu nag muy wax ni bu ñu ñëwee dañoo war a signalé bu ko defee matuwaay yi war yépp ñu jël ko bu dee yeneen bërëbu fajukaay yëpp jël nañ ko hôpital Ndamaatu taxawal ci ay bés bala ñu génn comité de pilotage jot a def nag ay activités yu bëri jëm ci fànn boobu ki nga xam ni moom mooy coordonnateur bi di docteur El Hadj Ndiaye Diop di wax nii altine ba léegi ñi ngi tàggat personnel bi yëpp ngir xamale leen ak jàngoro ji bu ñu gisee cas suspect nan lañ war a def ak naka la ñu war a fagaroo yokku na ci it ni am na fit d'isolement moo xam ni waajal nañ ko ba noppi ak matériel de protection waaye tamit ay garab lu jëm ci wàllu sensibilisation yi nag am na spot xam ni ñu ngi koy dawal ci poste téléviseurs yi nekk ci salle d'attente yëpp waaye médecin bi di wax ni li ëpp solo fi mu ne nii moom mooy set ak sell goo xam ni ku nekk war nga sàlloo ak moom ngeen mucc ci Covid 19. tuuti say Mbacke su defam euh, tuuti say jaajëfal ko ñu dal di desandi ci mbir moomee euh, sénégalais boobu nga xam ne nag daal nay amee coronavirus bi ab euh, waay bi nga xam ne nag citoyen sénégalais la dafa ñibbisi ci Italie ba mu daal di nag jóge juróom benn fan ci weeru mars gi ñu nekk mu ngi dëkkee nag foofu ca Touba jamono ji jile nag mu ngi foofu ca hôpital bu Fann Sénégal nag ñetti cas yi ñu confirmé comme jamono ji la ñu doon jàpp am nañ leen ndax patiente bi nga xam ne doomu nag Angleterre rek wér teewul ministre bi di fàttali jumtuwaay ak matuwaay yi ñu war jël ngir mucc ci feebar bi Amadou Moustapha Dia. coronavirus dal na ab doomu réewu Sénégal lu ni mel di guléet bi mu tàmbalee ba léegi fii ci réew mi benn modu modu la bu bawoo réew Italie yegg si fii ci réewu senegal juróom benni fan ci weeru mars bile mi ngi làq ci ay at lu toll ci juróom fukk ak ñaar te dëkk Touba jamono jile toxal nañ ko andi ko fii ci fan ngir fas yéene koo faj Aloyse Diouf. am nañu benn cas bu ñu prélevé biñ ko testé cas bi dafa positif ci coronavirus benn sénégalais la bu nekkoon Italie ñëw vendredi 6 mars fii ci Dakar jaare ko aéroport international Blaise Diagne mu consulter mardi 10 mars ëlëg sa bi mu seetloo ne commencé na am ay mandarga jàngoro gi bi mu consulter nag prélevé nañ ko ci centre structure de santé bi nga xam ne mu ngi foofu ci Touba isolé ko actuellement mu ngi ñu hospitalisé service maladie infectieuse bu Fann Aloïs Diouf moomule di xam ne jamono jile loolee Sénégal mi ngi ci ñetti cas ndaxte doomu réewu Angleterre bu jigéen bi le nga xam ne doon nañu saytuwaat wér-gu-yaramam di xool ndaxam wér na am déet ci feebar bi lee jot naa wér. donc ci bésu tey bi mun nañ wax ne Sénégal ñetti cas positif la am yu ñu hospitalisé di leen traité service maladie infectieuse. ci noonu lee muy gën a ñaax askan wi ñu gën a bàyyi xel ci lépp lu jëm ci wàllu kaaraange ginnaaw nag bi xibaar bi jibee askan woowale sax lenn ci askan wi lii lañ ci xalaat. dëgg gu ma daal sénégalais yi. waaw loolu fagaru rek gën a fagaru rek gën a fagaru set rek. di raxasoo loxo daal di di di raxas tànk setoo moom. lu bëri mun na laa dal. bon c'est dommage ah c'est dommage. mos naa dégg si Serigne Cheikh Tidiane si wax. mu ne ñetti nit moo am. koo xam ne conscience am utiliser mhm. jëm parce que xam na devoir koo xam ne il faut nga sensibiliser ko am na koo xam ne du demee conscience am boo ko sensibiliser du ko appliquer il faut que mesure sanction ñu ngi wax affaire sensibiliser ak nangam te amul suivi kooku c'est c'est inintéressant parce que état dafa war a jël mesure état dafa war a am taxawaay jamono jilee ber nañu njabootu Modou Modou ba nekk ca Touba ngir saytu seen wér-gu-yaram fi yekk fan ak ñeent Amadou Moustapha Dieng fële ca diwaanu Tambacounda ka ñu njottoon ci moom yu fii te nekkoon ab néew néewu doomu tugal ca centre hospitalier régional bu Tambacounda goge mujjantal ga daal résultat yi yamu daal di nag wane mooy du corona bi autorité médicale yi daal di jël seen matuwaay génne résultat yi Boubacar Tamba. mbir mi leer na nañ la faat doomu France mu ñu indi néewam fa nga xamante ni mooy centre hospitalier régional bu Tambacounda du jàngoroy coronavirus mooy docteur Bayal Cissé ci boppam moom mooy kat jiite région médicale bu Tambacounda. donc depuis avant minuit jot nañu résultat bi pour wax leen que mbir mi fii ci Tambacounda ñoo ngi ci farlu bu baax parce que am nañu fi benn comité bu taxaw boo xam ne monsieur le gouverneur moo koy présider ci ci biir euh, euh, comité boobu am nañu ñeneen ñu ci nekk directeur hôpital bi bu ngi ci. médecin chef du sept district yi bokk nañ ci euh, force sécurité yi ak ñeneen këpp koo xam ne xalaat nañ ak yéen ñi presse bi sax ci leen ci ngeen bokk euh, pour saytu euh, mbir yu mel nii bu amee pour ñu mën si gën a gaaw donc gis nañu mun nañu jàpp que dëgg-dëgg comité boobu digg yam gaaw benn fan prélèvement bi jot nañ ko def yegg na Dakar xool nañ ko ba gis nañu saytu nañ ko xam nañu résultat bi résultat bi ñu sant ci yàlla bu baax a baax lu mu wane mooy que néew boobu en tout cas du coronavirus moo ko faat loolu leer na donc mun nañu xalaat ne tey fii ci Tambacounda ba léegi amaguñu benn nit boo xam ne am nañu feebar bu ñu tuddee coronavirus. askan yi di ci sant sunu borom di ñaax itamit kilifa yi fi ngànk wàllu wér gu yaram ñu gën yokk seen taxawaay ci xeex bi ñu xeex jàngoroy coronavirus Boubacar Tamba doon cee jokkoo fii ci Tambacounda. xaaju sud afrique la ñuy tàbbil ci wet ga Kolda foofu itam yi ñu daal di testé ca kañu ko doon jort moom itam gisuñu ca dara ba tax nag euh, kii di médecin chef euh, bu district di ci dellu siwaat moom docteur Yaya Baldé ñu déglu ko Babacar waaw xam ngeen comme ni ñu ko waxee woon ngi ci phase euh, de surveillance bu bu bu ñu renforcé daanaka phase de riposte comme ni ko gisee woon am nañ cas xam ne dafa suspect ñu def prélèvement yi mais waxoon nañu tamit cas suspect ak cas confirmé du benn laboratoire rek moo la mën a wax ne que cas confirmé la laboratoire bi tey joxe na résultat bi autorité ministère yi jot nañu résultat yooyu donc cas bi dafa négatif moom it tamit dem nañ ci moom jox nañ ko résultat am benal nañ xelam ñu ngi koy continuer di ko suivre parce que dafa feebar mais amul coronavirus donc loolu lu am solo la jàngat buñ ci am nag mooy vraiment li ñuy rafetlu ci li système communautaire bi fonctionné pour mën ñu alerter tamit ñu ngi rafetlu aussi yenn presse bi le fait que ngeen ñëw ci ñu autorités sanitaires yi pour toujours ñu am la bonne source d'information am na solo donc loolu toujours ñu continuer collaboration boobu Eh, ñu daal di nag wéy fàtte nag OMS daal di déclaré ci àllarba ji ne épidémie combi Covid 19 boobule jàll na ci pandémie eh, nombre bi nga xam ne mooy lim gi ñu bees ñi ko daal di nag am eh, ci biti Chine gis nañ ne daal dafa daal di yokku buñ ko doon rek xayma daal di nay multiplier lu war a toll ci fukk ak ñett ci diirub ñaari ayu bés directeur général bu OMS daldi di nag gis ne ci fan yi ñu daldi di nag jëm nombre cas ñi nga xam ne dañuy daal di nag faatu ci. ci réew yooyu dafay daal di nag yokku ba tax mu ngi woo nag àdduna si wërngal këpp ñu daal di fexe pandémie boobu matuwaay ca daal di nag war ñu jël ko laata muy entraîner euh, nombre de morts euh, yooyu yëpp ba tey ci wàllu santé ñu daal di ciy desandi fàttane ne mbir moomee euh, ponk la ci wax sa xalaat mooy rek def ndànk ci jëfandiku cigarette ak alcool gis nañu ne lu mën a tax nit ki daal di ñàkk baatam la ci ginnaaw gi nag opération moo cay war ndax cancer larynx lañ koy tuddee mën rek dundaat wala amaat ko faaw ñu daal koy nag euh, opéré bu ca noppee nag mën na ko indil jafe-jafe ci wàllu na muy nooyee na muy waxee na muy xeeñco ba ci sax na muy daal di nag euh, jëfandikoo ci wàllu nag euh, ñam dund boobu gannaaw chirurgie boobu ñu ko daal di nag defal xeetu maladie lay doon association sénégalaise ñi nga xam ne jaar nañ ci mbir moomee daal di yëkkati seen i nag kàddu di daldi di nag yëgle ci jafe-jafe yi ñuy faral di jànkonteel rawante bi nga interpellé nañ ci nguur gi Adja Ndeye Khady Diop. dem ba mënatuloo wax sa baat suufe lool ngay noyyee ci sa put li koy waxal di cancer bu jàpp larynx bi ñu mujj la daal di opéré malade bi di nettali ni mu ko dikkee ndax li mu bëgg mooy ñëpp xam ne cigarette ak sangara bokk nañ ci li nga xamante ne dinañu indi cancer ci larynx bi ngir seen baat yi mën a jug tuuti ñu mën a wax sax ak seen njaboot faw fi mu ne nii ñu jëfandikoo benn appareil bu ñuy tuddee laryngophone ñu baatam naka la mel. c'est le cancer bi nga xam cancer moo ñu dal man nag depuis deux mille douze la commencé sama voix bi di faible su may noyyi respiration bi di tag affaire bi jaaxal ma muñ may naan ay garab wolof yi rek ma def ba un certain temps pour ma noyyi il faut damay ñaan ma ñëw rek ñu bëggal ma fii ci laa amee jàmm ma noyyi waaye bu noo bëree da ngay perte voix man ni def leen ko tey bu ma demee ba léegi. mënuma wax sànn dinañ ko comme feebar a wax boo mënul wax rek doo doo bokk. ñoom malaat yi nag daal di ñuy taxawal benn association boo xamante ni mi ngi ëmb ñëpp ñi nga xamante ne dañu dindi seen laxañ wala ñu dem ba mënatuñu daal di wax ñi leen di faj di leen jàppale lool dem sax ba nangu ne njëgu paj mi métti na lool ci ndoddu malaat yi docteur Fallou Niang di interne des hôpitaux ci service ORL bu hôpital bu Fann. jafe-jafe bi mooy aussi coût prise charge bi parce que feebar bi chirurgie bi xaw na cher malade yi te bu loolu weesoo dinañ def radiothérapie dinañ def aussi en même temps réhabilitation phonatoire loolu lépp apprentissage te ay appareils yi war a utiliser wala yeneen pour laryngophone bi environ ay cinq cent mille lay jar donc loolu lépp dina xaw a diis donc jafe-jafe bi foofu lay ne mooy surtout amuñu appui dans la prise charge te aussi feebar yi na bëri si dëkk bi. tey jii ci alxames ji moo ak fukki fan ak ñaar ci weeru mars. ci la ñu naroon a amal benn journée porte ouverte ci hôpital bu Fann ngir xamali nit ñi ak cancer bi jàpp wàllu larynx waaye nag xew-xew bi dañu ko daal di puus li ko waxal moom mooy coronavirus bi. Ndeye Khady Diop ñu daal di ci desandi ba tey ak jëfandikoo alcool googu ak wàllu cigarette yi mën a indi yooyu la jafe-jafe yooyu yëpp mu daal di euh, tënk li ni mel itam euh, gannaaw canceru euh, larynx boobu mu mën rek daal di indi tax des na beneen njàngat ba ci aju ndax gis nañ ne juróom fukk ci ay kaayu bees ci wàllu cancer larynx googu at bu jot dañ koy nemmee ko hôpital Fann yi fi nag mu ngay yokku tiital waa kër docteur ba tax ñu jàpp lu mooy alcool gi ak cigarette si am na yeneen yu ko indi mooy rek lu aju ci Euh, wàllu feu de bois yi taal li nga xam ne nag mooy ay euh, bant waaye itam leneen ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu nag euh, communication taskatu xibaar yi animateurs yi avocats yi jàngalekat yi nga xam ne seen baat léeg-léeg dafay am la muy laaj docteur Fallou Niang nekk interne hôpitaux yu service ORL bu Fann ñu déglu ko Jandey Khady Diop. cancer de la laine si cancer la boo xamante ni si baat bi lay nekk si waxukaay bi particulièrement donc moom la ñu tuddee si baat ndox bi la nekk ak aussi ci wàllu nooy bi am na ci njëriñ baax ak plus ou moins lekk bi mandarga yi si gën a fës mooy baat buy dee baat bu dee bu tar bu xaw a yàgg ci nit koo xamante ne rawat na ni ne day tux cigarette wala muy naan alcool te am ay juróom fukki at jëm ko rawat ci góor nag lu ëpp lu muy amee ginnaaw baat bi dee boobu bu ba sori mën na waral nit ki am jafe-jafe pour nooyi nooyi boo xamante ni buy dugal ngelaw bi la yëg ni day diis ñaan diis na bu loolu weesoo bi dem ba sori mën na bi tamit mën naa am ay donj yoo xam mën na feeñ ci baat bi ñaan ay adénopathie waaye li si ëpp solo daal mooy baat bu dee bi moom boobu moom bu ñëwee rek daa nit ki war na daw xool lan la est-ce que am nañu mu gën a yàpp ci biir société bi moo xam ci ay xeetu liggéey yu ñuy def yoo xamante ne ragal nañ ne su yàggee mën nañ ko am bon naa ne li indi feebar bi euh, avec xam nañ ko mooy facteurs yi moom lañ incriminé te bi si njëkk moom mooy cigarette donc cigarette nit kuy tux cigarette am nga forte chance pour am xam day naan alcool ab tabac si gën a ëpp bu loolu weesoo bon gis nañ ko aussi suñu mbokk jigéen ñi fii Sénégal ñu ko am mais loolu am na yu ñuy xaw a incriminé jàpp ci la bokk mooy ñiy toggi ay matt ay këriñ saxaar soos noonu ñi nekk lu yàgg mën na leen a waral loolu donc à côté aussi am na ñi nga xam ne ñaan les professionnels de la voix comme <laughs> ne seen voix yi utiliser seen liggéey wala enseignants yi à la longue mën nañu def la ñaa ay laryngite chronique donc loolu aussi mën na dem ba indi ay jafe-jafe euh, cancer yooyu mais li liñ gën a incriminé mooy alcool ak tabac moom moo ci gën a gën a fës Eh, ñu daal di nag ñëw ci li nga xam ne mooy communiqué bu police bu mu daal di fësal ci liggéeyam diggante benn fan ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février 2020 bi commissariat centraux ak spéciaux yu arrondissement ak urbain eh, yu poste police yi nga xam ne ñoo aju ci eh, direction bu sécurité publique ci Sénégal gi yëpp daanaka amal nañu seen i kaka opération ci la ñu xayma na nag lu war a toll ci ñeenti junni ak téeméer ak fukk ak benn ci ay nit daal nañ ne def nañu ko euh, fukk ak juróom-benn yi ay ñu fare bitim réew lañu maanaam nationalité étrangère euh, buñ ko gam-gamlee nee ñu ci li ñu wees gis nañ ne wàññeeku am na ci euh, ci loolu juróom-benn cas ñoo xam ne nag dañoo daal di faat seen bakkan daal nañ ko ci rek gis buñ ko méngalee nag ak weer wi passé janvier bi nee ñu wàññeeku na ndax boobu amoon na fukk ak benn nit ñi nga xam ne ñoo daal di nag faatu ci xeex bu muy xeex wàllu délinquance ak criminalité ñuy faral di faat bakkan Ndakaaru euh, mu ngi fexe na ba daal di génne ñaari band yoo xam ne ay defkatu lu ñaaw lañu ca luga itam bari na ay nit ñu doon def euh, yu ñaaw yooyu la ñoom it daal nañ leen rek teg euh, loxo ci wàllum càcc lañ doon yëngatu waaye itam yore seeni ngànnaay ci loolee ba tey ab ceeb boo xam ne baaxul ci ñu daal di koy jëfandikoo teg nañ ci loxo lu war a toll ci téeméer rek juróom-ñaar fukk ak juróomi tonnes yoo xam ne commissariat Rebeuss lañ ko dal di nag sax yóbbu ñoo dal di def ci daal leen cay rek euh, teg euh, loxo euh, li jëm ci wàllu accident yi nag nemmeeku nañ ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaar li ni mel nag nee ñu def na ay dégâts lu war a toll ci ay matériel ndax téeméer ak fanweer ak juróomi matériel yàqu na ca nit ñi ci faatu itam war nañ toll ci fukk ak ñetti nit ci wàllu l'accident yooyu waa bureau relation publique bu police daal di fësal li ni am na beneen itam mooy li aju ci wàllu nag drogue yi ca Tambacounda daal nañ loxo ñoo xam ne dañ doon yënga ci wàll wi gannaaw nag ba lëkkaloo amee diggante waa OCRTIS waa BIP ak waa BRS ñu gis ne dañ leen soufflé woon kenn koo xam ne wala groupe boo xam ne ci la ñu doon daal di nag yëngu ci lañ leen nag gis ca village ba ñuy wax Saare Bala nekk ca frontière ba ak Gambie foofee lu war a toll nee ñu ci juróom benn fukk ak juróom ñett ci ay ivoire daal nay ivoire hippopotame mooy yu mel ni bëñ cee nekk ci ñoom nangu nañu ko waaye itam hipopotames la ak ay pakke yu bari ci xeetu munition yoo xam ne calibre douze la ba tax euh, njiit la sax dañ ko jamoon ba ñu yóbbu ko hôpital ngir ñu daal di koy euh, toppatoo ci surveillance yu ñi nga xam ne nag ñooy waa euh, police googee ñu daal di ciy desandi ak série yi nga xam ne ñooy faral di faatu ci mim réew rawatina jigéen yi sénégalais yu bari di ñaawlu ñàkkum sécurité googu ci mim réew ne ñu faaw ñu daal di tegaat peine de mort ndax ñi ñuy faat ci bakken bari na rawatina violence yi ñuy jëme ci jigéen yi gëstu geek aji faatu bari rey jëf-jëf ju ñaaw Sénégal jigéen ñi ñu ngi wëy di dund ay jafe-jafe bi ci mujj moo di faatu kii di Mariam Diagne amoon ñaar fukki at ak juróom amoon jëkkër tolloon ci ñetti weeru ëmb ñu daal di ko faat ci këram sa Thiès lii du sax jëfu nit ci yaakaaru xale bu góor bi ñu dajeel. ku nekk nit am na loo xamante ne doo ko mën a nangu ci ci penc mi. kenn mënul nangu tey nga jàkkaarloog jigéen di ko rey. waaye leneen lu ñu gis moo di ne faat gu bëri gi day wane rek ne Sénégal ñàkk kaaraange bi mi ngi fi ne xuus waaye leneen lu ñuy waxtaanee moo di ndaxam ñii di jëf-jëf yu ñaaw yi ndax ñu ngi ànd ak seeni xel. man pour man loolu yow kuy def loolu amul xol. su fekkee ni nit nit kese nga mënoo tiim nit sa moromu nit naan da nga koy naan da koy da nga koy jamaat mala sax soo koy am na nuñ la am na ñu la waxee nga nga nga rendi ko pour rek juste bañ euh, métit bi mën ko kii mais tey nit nga tiim nit di ko di ko di ko jam ko ay ay paaka yu bëri pour mu dee ko pense que loolu ko soit dafa feebar wala mu am ay ay troublement troublement parce que am loo xamante ne nit mënu ko mënu ko nangu xel mënu ko nangu. ngir nag daan leen daan yu metti ñi ñu dajee seen xalaat benn rek la moo di faaw ñu teg ay sanction yu saf ba nga xamante ne keneen du ko xalaat a jëf. su nekkoon amoon na bi man dañuy appliquer peine de mort. tey ku rey nit dañ dañ la war dañ la war a rey parce que. viwu nit viwu doomu aadama bi xeex ngir jëf yu metti yi ñuy teg jigéen ñi wax na ne ci diiru fukki weer ak ñeent lu toll ci ñaar fukki jigéen ak benn faat nañ leen ci réew mi lii nag di lu tiis di tegaat ci taabal bi itam li ñuy wax peine de mort te mooy ku faat ñu daal di la faat te ñu bëri jàpp ne mooy li war a am fii ci mim réew Euh, ñu dikk aji Fatou ak coalition publier ce que vous ñoom ñi woote nag ab ndaje bu yaatu ngir daal di weccu ay xalaat ak askan yi nga xam ne ñoo loru ci carrière yëngu ci wàllu ciment foofu ca Diass ba ci département bu mbuur la ñu bëgg nag mooy sensibiliser askan wa bu ko defee nag yenn ci ay rëq-rëq yañ leen di tekk coalition bi fexe jàppale leen ceneen ñuy defee ñu daal di koy dabaatal mbuur Babacar Sow ndaje weccantey xalaat ak askan yi nga xamee ni ñoo nekk ci dëkk dëkkaani jas ci commune bu département bu Mbour bi nga xame ni carrières yi ak cimenterie yi dañ leen di andil loraange coalition publier ce que vous payez doon leen tàggat ngir saytu lenn ci jafe-jafe yi nga xamee ni daf leen di indil gàllankoor dip ndaje boo xam ni itam ñu ngi doon seet ay saafara yoo xam ni publier ce que vous payez nee na daal nañu ko jooyan ci ni mu gën a gaawee jas di béréb bu nga xamee ni bokk ci diwaanu Thiès béréb bi nga xamee ni téeméeri milliards ak ñaar fukk ak ñaar yi nga xamee ni génn ci secteur extractif juróom benn fukki yi diwaan bi lay jógee suñu sukkandikoo ci Abdou Aziz Diop coordonnateur antenne régionale publier ce que vous payez li muy yàbbi nee na daal askan wi gisuñ ci seen bopp. poussière bi nga xam ne moom la ñu wan ci wàllu yoon yi alors poussière boobu am na ay kër yoo xam ne ñoom la gën a jege. alors xale yi danañ leen di soj maanaam poussière bi danañ ko jal ak mag yi soj dana leen di soj loolu su yàggee dana leen di maladie bi yoo xam ne mu di wax alors maladie pulmonaire maanaam maladie yoo xam ne ci ci ci xol yi lay jàpp loolu nag balaa ñuy yàgg foofu nañu dimbali ak ñoom ñu guddale yoon bi alors yoon bi nga xam ne moom la doon jaar yoon boobu ñaari entreprise ñoo ci doon jaar publier ce que vous payez bi bi a nga xamee ni bërëbi liggéeykaay yi nañ leen ko andil Moussa Faye ci dëkkub ci kii bi nga xamee ni poussière bi bi nga xam ne moom la ñu woon ci wàllu yoon yi alors poussière boobu am na ay kër yoo xam ne ñoom la gën a jege alors xale yi danañ leen di soj maanaam poussière bi danañ ko jël ak mag yi soj maladie yoo xam ne li ñuy wax alors maladie pulmonaire maanaam maladie yoo xam ne ci ci xol yi lay jàpp loolu nag balaa ñuy yàgg foofu nañu dimbali entreprise yi autorités yi waxtaan ak ñoom ñu guddale yoon bi alors yoon bi nga xam ne moom lañ doon jaar yoon boobu ñaari entreprise ñoo ci doon jaar dip ndaje bu ñu doon amale ci mairie Diass foofee nga xam ni kilifa nga ko ndogal nee nañ daal daañ ci xar seen tànku ko ñu daal di ak euh, match bi ñuy amal jamono ji li huitième de finale yi aju ci wàllu ligue champion bi euh, Liverpool euh, daana gum na wala duggala gum na Atlético benn bal ci dara match gi nag jeexagul ndax ca ale bi ñoom it nañ leen ko daanoon beneen match bi dox diggante nag Dortmund ak PSG ñaari bal la PSG amagum nag ci kaw mu jege lool kon li nga xam ne mooy qualification bi fi ak match bi daal di jeex dinañ xam nag ñaari équipe yooyu ndax dinañu décrocher accroché seeni qualifi ticket qualification ñu daal di euh, ñëw ak équipe nationale u ak euh, bi nga xam ne nag euh, mooy wàllu jigéen yi tey jii nag présenté nañu wàllu nag trophée bi nga xam ne nag daal nañ koy rek amal ci wàllu coupe UEFA bi coupe arabe bi itam nga xame ne fédération sénégalaise bu football ñoom taxaw woon nañu ki lu bari nag ci xeetu distinction daanaka daal nañ koy rek amee ci ñi nga xam ne ci tàccu yi la ñaari équipe nationale yu Sénégal u ak dam daal di présenté ndam yi nga xamante ne jëlee nañ ko. ca Arabie Saoudite ak it ca Sierra Leone ci kilifa yu jiite fédération sénégalaise bu football niki alarba ji équipe national gune yi nga xamante ne amaguñu ñaar fukki at nag ñoom ñoo daal di jël coupe arab ginnaaw bi nga xamante ne dañ leen fa prié woon ci loole ñu dugal fa fukki bi ak ñett daal di fa encaissé ñaari bal ñu gis ne itam ñoom la ñu daal di jox meilleur buteur lu jëm ci wàllu jigéen ni ñoom ñoom ñoo jël lii di coupe fois ci distinction yooyu kii di Mama Diop moom la ñu jox femme di match Sénégal Guinée jox ko itam Sénégal Nigéria ak it meilleure joueuse. la femme du match du premier match Sénégal Guinée qui est Mama Diop qui est international mais qui est à l'extérieur qui n'est pas euh, ici qui sera représenté tout à l'heure par Séni Guissec la commission pour protéger. vous avez euh, femme match de la demi-finale Sénégal Libéria c'est toujours Mama Diop. fin du match de la rencontre Sénégal-Cap-Vert, Habib Balde. Et vous avez pour ce tournoi, kii di Tening Sène di gardienne équipe nationale moom la gis ne moom mooy meilleur gardien tournoi UFOA bile. man la Tening Sène man nag meilleur gardien bi c'est la première fois man nekk euh, gardien bi équipe nationale titulaire yàlla dogal ne son premier match contre Gambie la woon ñu demaat la même chose ma jël meilleur gardien euh, du ko sant yàlla bu baax a lii di meilleure joueuse ci demi-finale bi nag. diggante Sénégal ak Libéria ak lii di ndam li jox nañ ko équipe nationale bu jigéen yi li ci noone président fédération sénégalaise de football di maître Augustin Senghor ginnaaw bu mu leen sargalee daal di leen ñaax daal di na jox képp ku nekk ci ñoom benn ndampaay bu toll ci 500 000 francs kenn ku nekk ngir rek daal di leen jaajëfal. ñu daal leen jaajëfal équipe nationale U20 yooyu la ci wàllu nag jigéen yi ñu daal leen présenté seen i euh, trophée ki nga xam ne nag mooy Tening Sène mooy meilleur gardien bu tournoi bu il faut googule moom nag mu ngi xalaat compétition yi ñëw ak taxawaayam ngir servir équipe bu Sénégal ñu teewlu ko moom Tening Sène ak Birama Ndiaye ñu demoon joué ji tournoi Sierra Leone yàlla dogal ñu jël tournoi bi dañ koy sant yàlla bu baax jël fa meilleur gardien meilleur joueur en plus rapporté jël coupe bi en même temps waaw ñu koy santewaat yàlla bu baax man nag meilleur gardien bi c'est la fois man nekk gardien bi équipe nationale titulaire yàlla dogal ne son premier match contre Gambie woon ñu demaat ñu répété la même chose ma jël meilleur gardien euh, du ko sant yàlla bu baax wax match na nag da doon métti trop mais da motivé te en même temps gëm naa sama bopp tare la trophée bi dañ ko yóbbu Sénégal match yëpp loolu laay loolu laay wax bu avant ñuy dugg ci terrain bi gëm leen seen bopp rek man dinaa gérer ci ginnaaw waaw incha allah li ma doon wax tamit di ma dégg te yàlla meñu tey ñu liñ soxla koy sant yàlla bu baax a baax waaw incha allah trophée bi daf ma daf ma motivé yokku ma courage parce que si qualification kan lañ jëm nii xam nga euh, du ma def lu concentré waat xam nga yokku góorgóorlu yokku jom parce que c'est la première fois lii ñu am nii ñu am ko parce que football féminin na kenn mosul dégg football féminin Dakar sax des fois xamuñ ci football féminin presque équipe yi ñaari équipe bañ xam muy Sirène wala ay Aigle de Bénin ay équipe yu yàgg la ama kon yàlla tey bu ñu jaglee ñu am chance bi nii dañ koy santiwaat soo mënoon nag mooy comme li ma l fii nii incha allah ci qualification yi yàlla dogalaat ma jël ko fa am naa gëm-gëm incha allah groupe bi ñu ngi liggéey bu baax a baax di remercier tamit suñ coach yi parce que la Euh, ñu jeexal nag ak arrêté ministériel bi nga xam ne moo daal di ministre du sport def na ko euh, Matar Ba ngir ñu daal di nag créé ab comité national boo xam ne dafay euh, fësal lépp lu jëm ci wàllu nag bras de fer muy sport boo xam ne nag daanaka ci informel bi lay yëngu jamono ji loolu nag la ñu bëgg dabaatal ñu jàpp ne faaw ñu jaare ko ci former sportif yooyu ja ji tàmbale ko ci salle de musculation yi waaye itam université yi ak yeneen i barab yu ñuy sàkkoo xam-xam dañ ciy teewlu kii di Abdou Aziz Sow mooy président comité national bi ci micro Aïssatou Gueye Ba. objectif yi nag euh, li si gën a gàtt mooy ñu former le maximum de ferristes. waaw ñu ngi si liggéey boobu ñu ngi dem jël ay relation ak ñëpp ñi ñu xalaat ne dinañu yëngatu si sport boobu muy salle de musculation euh, parcours sportif yi euh, ñi nekk ci écurie yi ñu nekk ci école yi. ñi nga xam ne ñi ngi sax ci seen kër nga xam ne dañu bëgg sport ci seen xol sur le plan de la capitale Sénégal ñi ngi wër banlieue beex saal yi fi nekk région yi ñi ngi euh, nouer contact yëpp képp ku bëgg pratiquer sport bi muy góor muy jigéen handicapé yi suñu mbokk handicapé yi ñëpp mën nañ ko pratiquer mais au préalable ñëwal nga xam technique yi loolu mooy affaire bi yàgg nañ ko pratiquer dans l'informel mu am ay blessures xëy na war ngeen war ngeen am ay référence mais boo ñëwee jàng di nga toll foo xam ne risque de blessure bu ñëwee da ngay arrêté sa combat wala arbitre yi arrêté ko donc loolu pour vulgariser dañu bëgg risque zéro xëy na mënul am mais daal le moindre possible Euh, ñëw daal di koy door ak Alioune Badara ak ponk yooyu ñëw jikko bokk na ci euh, wàllu coronavirus bi ak tolluwaay bi ci mim réew gannaaw kaa boobu ñu daal di euh, confirmer tey jile ak matuwaay yi ñu war rek gën a dooleel bokk na ci itam wàllu politique geek ñakk déggoo gi ci li jëm ci wàllu organisation yi foofee saa su ne ñu daal di ciy amee jafe-jafe ak la ko waral ak la cay saafara 88 628 98 98 biir réew mi bitim réew 33 841 22 33. asalaamaaleykum waaw allo Adama futum la waaw mii nga rek e eh, mot jame e eh, mot jam alhamdulilah Ablaye Ndeye ay nga jaajëf waay bon di nuyu saa si mbuub ziar Badji Ciss hmm. euh, bon dama bëggoon bokk ci débat bi rek participer ci ñaari thèmes yooyu nga laaj hmm. bi ci jëkk mooy mbir korona wala virus corona na ci gars yi gën a tey hmm. précaution gën a fagaru ministre bi nee naa fan yi yëpp nelawul day nekk ministère bi trois heures du matin ngir bëgg rek ndamu réew mi ak ndamu président Macky Sall du dëgg donte nag bon loolu moom lañ ko dénk parce que ministre boobu nee naa la président du ko dénk dof du ko dénk mandikat du ko dénk sulaar ministre boobu dafa souveraineté la du dëgg lu toll ni ministère de la santé action sociale ak armée ak bon ministre de intérieur yooyu président ku mu ko dénk rek xam na la ku lay ku muy lay doon ndax loolu dafa sensible di paas di ñëw ci mbiru politique bi newoon naa la fi Adama coow dina gën a bëri kanam la jëm coow li du fi jóg coow li hmm. gars yi ñu faru te xamuñu yoon bi loolu à chaque fois su may argument ma naan la coow dina gën a bëri du fi jóg chaque jour ku wax sa parti ngay waxal wala sa leader man balaa may dee ñu may ne am am euh, kii euh, Abdoulaye Wade indi Karim Wade te ñu def yàq nañu réew mi douze ans président woote dialogue pour ñu waxtaan pour mën a réew mën a dem ci kanam ku nekk di woote taxas benn côté président Macky li mu depuis 1960 benn njiitu réew mi la kaa leen ñu waxtaanee réew mi ndax mu amatul dara lu muy prouvé li mu def ci dëkk bi ci juróom-ñetti at yi benn état mosul ko fi def nañu wax li am. boo waxee nag noonu Macky Sall ku nekk daree sa bopp li ñu wax amul bopp amul gen Macky Sall nag kenn du ko jëm naan yi yàgg naa ko wax nee naa président du neenum neen moom boolewu dara ak ay wax liggéey pour Sénégal aller de l'avant ci loolu la nekk amul leneen waa PDS nag dañu war a déjju wala dañu war a dëkka ñu may sénégalais yi jàmm vraiment voilà moo nekk ñooy cor ko euh, kon ñu xaar keneen ci ligne bi loolu di xalaatam sosé beneen auditeur ci 88 628 98 98 allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw sëñ bi Oustaz Adama waaw El Hadj Aline Wilane Guédiawaye Sam Notaire ñu ngi lay nuyu waaw Wilane waaw ñu ngi lay delloo nuyu bu baax euh, Oustaz waaw man dama bëggoon wax rek lu jëm ci mbiru corona bi man damay wax rek euh, di ñaaxaat doomu aadama yi bu baax a baax ne leen fàggu moo gën faju te it bu ñu naagu comme ni ma ko waxee woon rek ku naagu daagu ku daagu ñu dem balaa te yaakaar naa ne tey euh, cas boobu ñuy wax ci Touba war naa gën a taxaat nit ñi jatu comme socca ndax Touba dëkku daara la Touba dëkk la boo xam ne euh, ay yaara ma fa dëkk ñëpp ubbeeku ñëpp bon benn comme ni ma ko mën a misaalee rek man fa ma dëkk bu ñu tegee ndab suñ seen doxandem dañ ko wane ko ñëwal lekk kon dëkk bu mel nee noonu su fekkente ne virus dafa dugg ak ci biir Sénégal jëpp dañoo war a euh, faxe ba fàggu may wax ne dafa am benn phénomène boo xam ne euh, ministre bi nga xam ne moo yor wàllu transport da ko defoon ci jamono bii ñu génnee ak Cheikh Gueye bi nga xam ne moo nekk fële ci euh, Castor meeru Castor dañu defoon proximité ma gis leen ñu yor ay sel yu nga xam ne dañ ko doon jox doomu aadama yi ñu koy ñu koy ñu koy utiliser. Euh, ci biir sel yooyu nag man ma ci waxaal leneen nag ndax dama gis benn vidéo boo xam ne loolu tamit yaakaar naa ne euh, arnaqueurs yi buy mel ni amee dañ ciy profité ñu yor benn euh, ay ci vidéo la boo xam ne ci réew tubaab yi la ñu yor ay masques yoo xam ne dañ koy joxe ndeke masques yi dañ ciy def ay produits yoo xam ne bu ñu la ko joxee nga nelaw boo nelawee ñu mën a profité pour yàqal la. loolu yëpp na ci nit ñi bàyyi xel ci lay jox masque di la ko may nga xam kan la proximité yooyu ñuy ñëw di joxe ay produits ñu xam ñu koy joxe ñan la mais su fekkente ne dafa bokk ci ñi nga xam ne ay mairie wala lu nga xam ne ay ministère ñoo ko organisé loolu moom yaakaar naa ne ci kàttanu suñu borom loolu am na solo Aliou Waly nag ñu koy sant bu baax di ko gërëm ndax yaakaar naa ni muy joxe information yi bu buñ ko dégloo bàyyi ci xel bu baax a baax baax. salaamaaleykum. ay salaam Adama noo def. waaw maa ngi fi. Mamadou Fatou Ba la maa ngi lay siyaare bu siyaare bu baax sama ñetti taal foofu li nga ñaan gudd fan wala seewale ci ndam. Mhm. corona bi daal aadama kaay nañ ciy teey rek parce que waxoon nañ Tamba ñu rëg rëg ko fa gaañu ñu ne corona la wax nañ ko Kolda waxati nañ ko Touba Touba dañ ne kooku Italie la jógee ku jógee Italie jaar aéroport xanaa di di yi wax ne jël nañ ko aéroport discussion yi ñu waxoon ne jël nañ ko amu ko nu mu mën a jógee Italie jaar fa dem Porokhane ñëw Touba ñu ne am na fa cas boobu du lu ma gëm ne benn am na Touba. nañ ko wone ay bokkam génn na wax ne dëgg mi ngi nii di mu leer ci bopp nit ñi buñ tiital nit ñi wala ñu leen indi benn problème Touba tàmm nañ saa su fa bëgg am ñu naan ay lii am na fa laa am na fa pour tiital ñi ñu bañ a dem nit ñi moom buñ doon dem Touba dee sax dañuy dem nañuy wax loo xam ne su lekk la coronavirus dalagul benn noir dalagul benn sénégalais dañuy jël matuwaay di wax lu leer boo mënut a wax lu leer nga noppi docteur bi ko xam ne génn ci télé bi wax ko ay ne am na ku sa bopp métti sax léegi ci jamono ji wala na dara da la ñu ne da ngaa am corona loolu mooy lan nit ñi dañ doon feebar démb di feebar bu corona jàllee mais du feebar boo xam ne fii ne benn cas bu dugg Touba dañuy wax lu leen neex rek man gëmuma ko mu mm. ku ko gëm nag yow la engagé. waaw waaw d' accord te gëmuma ne am dégg. waaw xam nga nit ñi moom euh, ñu rek ku wàcc sax wala dara dal ñu ne daa am corona li siital nit ñee ko wax nit ñi nañ ñaan jàmm ci réew am réew boo ñu yore yëf yi bu ñu waxee ne am na rek dañuy jàpp ne am na ah loolu ñu ñu seexaat la de parce que lu ñu xool la daal benn cabinet subaa kooku ñëwoon Porokhane lu mu def ba jaar aéroport bi ko dañ ne matuwaay yaa nga fa lu tax gisuñu ko fa ku fa jaar kay ci am ko war nañ la waroo jàll sax day dem ay Porokhane ki Touba loolu mënut a nekk de nañ waxaat leneen man loolu du Euh, loolu gis-gisam la ku mu ku mu ku mu neex rek ba gëm wala rek bañ a gëm loolu beneen mbir la allo salaamaaleykum. allo. waaw. oustaz Boy Malika na nga def. waaw maa ngi fi Boy Malika. ngëm ngëm dafa for oustaz. Mhm. na ngeen def. waaw ñu ngi fi ñu ngi fi. alhamdulilah. Euh, man de sama waxi démb rek laal mooy sama waxi tey rek. Mhm. nañu respecté daal recommandation médicale yi quoi. lépp loo xam ne daal docteur yi wax nañu ko nañu ko saytu doxal ko nañu ko war a doxale ne wan naa la fii nag ñaan moom du fa caajo day dëgëral yaakaar hmm. ñaan yi nag buñ ko boolee yitte yi ak pasteef yi yàlla mën naa dogal bu ñu ñaanee lépp yooyu mais recommandation médicale yi nañ ko respecté jaar ko fi war a moom moo ëpp doole waaw parce que maladie bi jombul kenn pays ëpp doole ñun ñii dañoo néew doole pays ëpp doole ñu ngi jël seen matukaay rawatina ñun ñii nag ñu nekk fii donc ñuy jël daal suñuy matukaay daal loolu daal moo gën a wóor hmm. waaw ñaan yi ak recommandation yi daal nañ koy boole mu ñëw ci affaire dialogue bi affaire dialogue bi moom yaakaar moom bu yebu gaa yi bañ ko cee bañ a am lama la waxoon rek moom moo moo nekk tey gis nga jaag teel a wóor na leen te garab moo tax mu ñu ne bànqaas waaye ba bànqaas soppali koo aw yat fu yat jaar jaan du fa jaar dañuy sonal seen bopp du ñu musa am résultat parce que ki nga xam ne moo war a ngànk résultat yi ñam fa yebal yépp mm. mooy diri seenu ndong fu ko neex la leen ko jël jaar leen fii waaw li mu leen problème posé yi pour ñu pour pour pour ñu jéem a seet ku ku ku présenté élection yi ku nekk nanguwu ko du ko mos a nangu ci këru àddina. Macky Sall nag moo fi def lu kenn deful kooku moom dëgg moom parce que ay waxam moo waroon ak i jëfam wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. Euh, loolu di jàngatam sëñ bi Boy Malika ñu xaar keneen soose ñu jël ko ci ligne bi biir réew mi wala bitim réew beneen auditeur allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam ba Adama Ndiaye ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Sud FM yëpp. ñu ngi lay fay waa ñu ngi lay fay. waaw ah, Maram Faye di jaale euh, suñu baay Ablaye Niang di ko jaale communauté Mouride bi yëpp. Hmm. ay mbokkam yal na ko yàlla xare àjjana. Hmm. bon di wax ne Adama. waaw. Adama. waaw. waaw ah, mais euh, dafa naa ne communiqué bi ministre de la santé ñoom ñoo ko génn seen porte parole bi ñoo ko wax kon boo ñu duggee bi di wax yaw yow mi journaliste dégg nga bi yow yaa ko war ne ko kon demewul nii demewul nii. mais doo ko bàyyi rek muy tërëre di wax sëñ bi sëñ bi sëñ bi bu ñu bu ñu wax li ñuy def moom nee na loolu la gëm nañ ko bàyyi ak gëm-gëmam yow mi gëm leneen léegi waxal leneen non mais yow journaliste nga bu ñu lay jox fausse information kooku fausse information la lay jox li li li waa sant wax bi kooku joxewul information xalaatam wax sa xalaat dañuy wax loolu xalaatam la waaw mais man daal li may wax ci affaire boobu noonu mooy doomu aadama yi ni ñu gën a farluwaat mhm. parce que commencement bi ñu ko waxee ñëpp farlu woon nañu ba jël ay matuwaay mais ñu am ay taaw yoo xam ñoom ñooy tax ba sénégalais sax léegi lañ doon def dañ koy bàyyi yaakaar ne feebar bi amu fi wala deme ne nii deme ne nii ba tax nit ñi dañuy dañuy bàyyi na kuwaat te bàyyi na kuwaat waruñu parce que eh, li nga xam ne moo jaaxal àdduna bi yëpp eh, Sénégal mu tegu ci eh, nañ ci gën a musul nag mais nañu jëlaat suñu matuwaay gën a nañu def commencement ba ñu def ko dañuy déglu yenn waxu doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoom seen intérêt kese kese moo tax ñu wax dafa naa waa état ñoom ñoo génne yooyu information du kenn kuy génne kon na ñëpp di gën a góorgóorlu bo di ñaan di boole ci tam di farlu di jël obisayal euh, di jël yëpp matukaay yëpp daal dañ ko jël euh, pour que feebar bi bañu dugg suñu dëkk parce que ñun attanuñu loolu noonu pays yi nga xam ne grande puissance lañu sax yu mel ni France Italie ñu ngi gën a sonn ci affaire bi te ñun amuñu sax hôpital bu ñu mën a benn malade fi ñu toll bi nañ ko gën a ko gën a saytuwaat ku fa jaar loolu la mu teew li yëpp yëpp yëpp mooy ñu gën a falwaat xam ne ñun ay nit lañu comme nit yëpp dañuy feebar dañuy dee da lépp dañuy dal ñu gën a moytu te moytu yenn nit ñi nga am ñoom jàpp nañ ne ñoom ñoom seen intérêt kese kese ñoo tax ñu wax jërëjëf jëf ok ñu jaajëfal ko ñu xaar keneen ci ligne bi jël ko euh, jéetaay wax sa xalaat beneen auditeur allo salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah waaw sëñ bi Sereer Jaamu Tukulóor waaw ñu ngi lay nuyu Alaaji bon di jaale umal islam góor gi Ablaye Niang mhm. ak communauté murit yëpp macha allah mhm. di di wax rekk ne wàllu wàllu fagaro bi moom ñoom ñooy wax ñooy weddiwaat de ñiy weddi ci seeni nit la nañ leen bàyyi rek ñuy war war loo garab walla ñiy xuloo ci biir nekk mhm. Sénégal eh, dañu ko war a aar sàmm ko sunu frontières yi nañ ko nañ ko sécuriser yàgg nañ di ko wax hmm. amul benn dëkk booy dem fii doo am séjour wala nga am lu la fay tax a toog te Sénégal rek ku ñëw loo yenu andi sotti fii dañuy sëgg rek hmm. donc il faut il faut que ñin ñi ñu xam ne mënuñu euh, jouer ci biir xelu sénégalais yi hmm. am na fi amu fii am na fee am te te lépp ñii ñuy wax ne bitim réew lañ jógee am na fu jaar jaar ñi ci ko ci kaw asamaan bàllewuñu ci suuf ay nit lañu dañoo jaar ci frontières yi dañoo jaar ci kaw ci avion yi ci air bi wala ñu jaar ci frontières yi donc nañu sécuriser sunu réew ñu bàyyi caaxaan bi foofu dama fay profité wax ne li ma doon wax Macky Sall laay joxoñ direct na wootee dialogue boo xamante ne day woote pour ñu waxtaan ci lii am na ñu ko ëpp xam-xam te nekk ci opposition laa la wax te liggéey ci wàllu médecine Eva Marie Coll Seck Idrissa Seck moo ko jëlee bitim réew indi ko fii ci Sénégal waaw donc il faut que ñu xam loolu ñu respecté ñi ñu seen nawle yi fi ne nañ leen boole ci lii Macky Sall na toog solennellement parce que loolu mooy l'acte de grandeur yal na nu yàlla yërëm ci foofu may terminer rek wax ne dialogue bi moom. Mhm. day continuer di am parce que dialogue politique bi il faut ñu régler mbiru fichier bi. Mhm. loolu opposition yëpp ñoo ci bokk Sonko ak IDEC keneen ak keneen bu fi kenn nax kenn. Mhm. ñun ñëpp ñu ngi ci dialogue politique bu dul loolu élection bu amaatee fii yëngu-yëngooy am donc il faut que mu leer. asalaamaaleykum ni tabal huda. ok waaw ah, kay Jibi Sow moo doon wote ñu xaar keneen soo see ñu jël ko ci ligne bi 88 628 98 98. allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum Socé dafa mel ni. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi waaw. allo. allo waaw maa ngi lay dégg. ñu ngi siyaare de. ñu ngi lay delloo di ñaan suñu ndax dafa yàgg séer. Mhm. Daara Baye Daara Diop Kër Massar suñu sama seeti ñaan mhm. ni Oustaz Adama mhm. euh, ko woote waaye nag bu fekkente ni bii ñu ngay woo Euh, dialogue taxu leen a jóg chaque jour dañuy bëgg di jiital seen intérêt personnel ci dialogue wala nga teg ay condition ni bu lii amul dialogue du àll moo am na nga nekk sa mbedd ba coow li rek moo leen moo leen moo leen ci yitteel coow li ñuy coow moo leen ci ñor moo tax dialogue moom président mooy jël ay responsabilité rek parce que moom lañu ñu fal comme moom la ñu fal nag moom mooy doxal rek waaw ku ñëw mu waxtaan ak yow ñu xool ni ñuy doxalee ku ko mënut nga dem mu doxal waaw yooyu responsabilité moom ci ndoddam la nekk bu paasee loolu korona feebar bi nag yàlla na ñu ci yàlla doole muccal waaye jàpp naa ne mucc bi moom lu soxla ak lay doon ndax euh, euh, xëy na nee nañu dal na am na ko mu dal waaye nag bu mu dee bu mu tax benn xel teey nañuy continuer rek di vivre bi dund suñu dund hmm, te yaakaar naa ay matukaay moom ñàkku ndax bu fekkee dañuy wax ni booy def nangam na nga raxas <laughs> nit ñi moom ci njàpp ak sam raxasu si dëkk ak cat moom ako xëy ci ci ci kaalu bi la fekk baax kon loolu doy na sëkk Sénégal bu ñu yóbbu fiti ñu bu ñu yóbbu seeni xel nañ ñëpp ànd ak ak dal réew mi nag mu ngi ci jàmm mu ngi ci stabilité waaw responsabilité yi nga xamante ne gouvernement bi mu ngi koy mu ngi koy doxal surtout ministre de la santé bi nga xamante ne bii moo seere affaire yooyu euh, ak équipe am ñu ngi doxal doxal ñu mucc ayib waaw réew yépp la am te itam réew yi mu am yëpp ñu ci ëpp am nañ ci ay defet sauf du fii ci réew mi ñu ngi ciy def ay jéego yoo am solo kon nañ leen jéego yokk matériel bi kaan ko waaw matal na ñaari ma ñu daal di jël keneen ci ligne bi sosé allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah dama maa ngi lay nuyu lu bari man la Mamadou Mador nuyu nga bokk liggéey bu ak Sud FM yëpp mhm. waaw li ngeen waxtaanee tey ci ñaari fonk benn bi feebar bi la benn bi euh, waaye man li may wax Thiapaul euh, di wax wax dëgg yàlla am feebar bi ñuy wax ni xam nga feebar bi dafa nekk bu nga xamante ne bii euh, adduna bi boo xoolee dëkk yi gën a mag yëpp euh, am na fa. waaye nag bu demee ba ñëw Sénégal ki ko njëkk am fii fàttali nañ ko ba mu wér loolu Sénégalais dañ ko war a rafetlu bu baax ministère de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak ñi mu àndal ñëpp ak ñi koy jàppale. parce que euh, wax dëgg yàlla loolu dafa nekk lu nga xamante ni bi ndam la mu nga xam ndam lu rëy kéemtaan dëgg dëgg dëgg dëgg ndax euh, feebar bi dafa nekk lu nga xamante ni bi yombul pour pour faj waaye yàlla def na comme am nañu matuwaay googu yàlla def na ko fi loolu dañuy sant yàlla te amul kenn ku nga xamante ni bi euh, faat na la fi ku ñu wax ne dal na la tamit bu moom moom daa daañu la taxaw da da ngay wër te te nag dégguñu benn sénégalais bu nga xamante ni bi nekk nañ ci koo xamante ni ay tubaab daal la ñuy wax waaye nag bu fekkee am na keneen ku ñu wax tamit ak lu mënti am lu bu mënti xew tamit wér rek sant rek ndax jël nañu matuwaay yëpp macha allah dañuy rafetlu taxawaayu ministère de la santé loolu amul amul dañ ko war a remercier bu baax ndax monde bi yëpp ñu ngi remercier vraiment ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr ci loolu. parce que liggéeyam moom def na ko ni mu waree waaye nag li may wax mooy ñeneen ñi nga xam ne yi waaye waaye buñ ci dugal di ci jéem politique ci mbirum mbirum euh, feebar. waaw wér-wér bu réer la xaw ma feebar bi nekk na feebar bu nga xamante ne bii wax dëgg yàlla am ëpp doole boo demee ba ñu siin ay junniy junniy doo ci faatu loolu na ñaan yàlla rek mu bañ fi egsi te lu ci mënti xew lu mënti am tamit comme ñu ngi koy faj nañ sant yàlla te te loolu amu fi te wax dëgg yàlla amu ab benn Sénégal bu nga xamante ne bii euh, faatu na la fi. te ñi ñi ko fi indi ay ay étranger te ñooñu tamit faj faj nañ ñi nga ki nga xamante ni moom la njëkk a dal ba ma nga këram toog jàpp njaamuram loolu dañuy sant yàlla bu baax ndax yàlla mu ne man laaj kur laaj kur laa ku sant li doo sant yàlla jërëjëf. Socé kon fii lañ koy yemale waxtu wi def nañu ñu daal di koy ajandi eh, ba ëllëg ak jàmm yeneen jotaay ci wàllu wax sa xalaat dina daal di nag am ñuy jéggalu ci ñu nekkoon ci ligne bi jaajëfal ñu woote 22h Adja Habsa Elimane Wane.